waaw sa dugg ayca yow rek la ñuy déglu. waaw waaw dama bëggoon a participer par rapport ak CAN euh, bi. CAN bi waaw. waaw parce que man je vois que les responsabilités sont partagées quoi. Mm-hmm. muy entre Aliou Cissé si boppam ak joueurs yi quoi. ok gis nga y a un problème qui se pose bu fekkoon ne joueurs yi ba léegi ñu ngi dox. Mm-hmm. du ñu nekk parce que booy xool euh, bu may xool YouTube bi dafa mel ni ba léegi ñu ngi jaay maillot 2003 yi quoi. maanaam ay génération Aliou Cissé ay génération ah, ah, ah, El Hadj Diouf. Mm-hmm. ça veut ça dire que ba léegi la population sénégalaise amagul confiance ci jour ci jour yi ñu yor nii. ok te booy xool en Afrique gars yi dañoo jël Sénégal teg ko comme number one ci ci ci équipe équipe équipe africaine yi nga xam équipe africaine yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ñooy joué ci coupe d'Afrique bi. booy xool par exemple sama gars yi su may wax ak ñoom fii dañ naan ñu yéen moom am ngeen chance jël coupe bi quoi mes amis nigériens ghanéens mel noonu. Mhm. mais li ma gis ni muy dox dafa mel ni yi jël ñu seen responsable mais Aliou Cissé aussi man vraiment tey des fois damay poser la question ba xam yàlla na ma yàlla baal mais dama naan ne dama dem ba naan mais xanaa Aliou Cissé gars yi dañ koy fay pour mu leen di indi y' a un certain si si joueurs yi quoi y' a un certain boo xamante ni man. man du man mënumaa lu tax mbay nekk ci terrain bi quoi man vraiment. Ibrahima Mbaye Ibrahima Mbaye xaj waaw xaj na loolu moom xam naa moom moom war naa sant yaayam quoi man dama gis ne am na ñaan waajur. waaye <laughs> ki dee la waaye. non mooy non non sincèrement man loolu laay wax quoi des fois da seetaan terrain ba si yàgg ne mais mbay moom vraiment lu tax sax mu nekk. Euh, maanaam si produit man dafa maa jaaxal parce que yaa a des jours local locaux yoo xamante ni boo leen fa tegoon sax ñoo gën a ay mbay. te te te vraiment man man man dama jàpp rek li may li may may wax chaque jour rek man dama jàpp ne Alioune Cissé moom fu mu toll nii fu mu nii moom war naa bu bu ñu bisee war ko woo rek ba mu ñëw ñu ko ne ko vraiment dimbali ñu ko nga jox keneen équipe bi. baal nañ la daal. parce que a mhm. man équipe bii ma gis nii man dama dem ba tey dama dem ne man dootuma seeraan dootuma ko seeraan quoi parce que ak Guinée ñu mën a match nii la Guinée waa mais Guinée tamit équipe no no non mais gis soxna soxna Bijou. Hmm. Euh, Guinée équipe la waaye Sénégal ci boppam dafa nekk boo xool boo xool euh, sénégal sénégalais mën nga see lim sept personnes yoo xam ne dañuy évoluer dans les plus grands dans les plus grands clubs du monde quoi. Hmm. ñooñu boo leen tegee ci terrain bi rek man sax suñu ma jëlee comme yow yow du ma ne man parce que man damay fubal euh, góol laa woon mais yow rek buñ la jëlee. jox la équipe bi war nga leen a mën a war war ngaa mën a yóbbu équipe war nga leen a mën a yóbbu demi wala wala wala final. <laughs> dama ko parce que yor nga joueurs yi. non non si si yor nga joueurs yi yor nga yor nga joueurs yi quoi. mais mm. lu toll nii Aliou Cissé mënut a maanaam man vraiment caractéristique man man man man des fois dama naan c'est c'est c'est extraordinaire nu muy classé joueurs yi c'est c'est grave. mais nañ nañ nañ jox sama waaj nañ jox nañ jox nañ jox El Hadj Diouf affaire yi. ah. moom nga xamante non mais si. même bu bëgg ko man dama koy seetaan mën a bëgg ko mais gis nga gis nga gis nga un gars comme El Hadj Diouf moo mën a yor moo mën a yor lii. parce que moom ba yàlla na ma yàlla jégal ne bandi la guerrier la lu ko neex lay def day day day day pousser jour yi pour jour yi def mais dafa ragal jour yi ah. bad boy lañ soxla quoi. merci la he is a bad boy. exactly you got the word he is a bad boy. xam nga nañ nañ ko jox nañ nañ ko jox club bi mu gérer ko. yóbbu gars yi même buñ ko bu fekkee ne moom bugg ko ñu jox ko keneen mais la mooy mais Aliou Cissé moom il a il a il a dama yàlla baal mais na il a montré ses te ku yor numéro am na moo ko jox ma wax mbay bu mu duggati si terrain bi. <laughs> Ibrahima Mbaye. non Ibrahima Mbaye non na bu mu duggati si terrain bi nañu fa tegal keneen. maa maa maa maa maa ngi jégalu baax na mais loolu taxoon ma dugg. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf wax quoi. jërëjëf merci beaucoup ci sa participation euh, keneen bu mu ne duggaat wax réaction am rek. Euh, gars yi xam naa 20 minutes yi moo tax moom dañuy bàyyi ñoom ñaar tamit ñu continuer waat seen analyse. ah euh, tey animateurs yeeg rappeurs yi ñoom ñooy def analyse yi quoi comme analyse yi ñu ngi wax boobu ba tey. dara dara sottiwul ñi warul wax nañu wax kon. mais mais foofu lañ toll mais damay damay aussi sama mbokk Guinée. oui eh, ba ñu toog si eh, tànn ah, dañu participer. yow Congo nga sa yoon nekk yaa <laughs> ngi dégg. maa ngi nuyu Ibrahima Khalil Magas ba si Guinée yi ñoom tey di fan naa Guinée dañ gagné. biir caa ngi cenc nag. Magas nenet je vous l'offre. mais mais ci gestion de Covid bi ak euh, test yi ñuy wax parce que bu ñu gisee euh, Koulibaly démb commencé woon na barki démb commencé woon na bëgg dal ba ne day quitté kan bi ci question de Covid war nañ ko defal test 48 heures avant gars yi bañ na di ko defal test est-ce que gisoo ni am na lu ci laxasu ci euh, ñu daal wax directement waa CAF. waaw xam nga man côté boobu mënu ma ci sori parce que en fait c'est euh, c'est la santé te yooyu ñun mënuñu ko maîtriser en fait. parce que mhm. dañuy gëm rek li ñuy wax. Mhm. Euh, mais je pense que bu fekkee ne ñun Sénégal am na doute ci loolu. Mhm. état war na ci mën a wax. parce que en fait Sénégal c'est c'est le pays quoi c'est le pays qui qui joue. donc bu fekkee ne ñun am nañu doute ci loolu. bu fekkee ne état mën na ci dugal tuuti benn gan salam xool c'est quoi le problème. fekkee ne les joueurs ils sont négatifs war nañ mën a fubal je pense que ne war nañ mën a régler loolu. Koulibaly nee na dañ ko dañ ko defal test mu négatif. non benn signe. waaw mais loolu xam nga loolu ñun mënuñu ko mënuñu man bo man loolu mënu ma toog naan dafa war a fubal wala mënu fubal. Mm. parce que loolu man mënu ma ci sori. et puis nag. Big euh, Mamadou loolu sax wax dëgg yàlla euh, ku. quelqu'un qui est censé warul poser wu question boobu. am na ñoo xamante ne seen yaram du du du manifester. du manifester réellement waaw loolu moom du question loolu moom du alibi moom loolu sax du <laughs> question. ba pare si ayca nañu jël kii ci ligne bi 628 14 salaamaaleykum. allo aleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax waay. waaw maa maa lay delloo ziar. Hmm, tur bi naka la ak foo ñuy woowee. Euh, Sarr la Sarr Sarr. Mhm. Pape Sarr Pape Sarr li ci des dama koy leb Dakar laa lay woowee Dakar. d' accord jërëjëf ñu léegi nag li ma si bëggoon intervenir moo di euh, si problème bi c' est un problème mu mu Aliou Cissé son problème c' le problème d' Aliou Cissé. il faut que les gens comprennent que y' a un lobby de footballeurs d' footballeurs et des gens qui des gens qui tournent autour de la fédération tant que ces gens là on les interroge ils ne diront jamais la vérité ils ne le diront jamais la vérité. lobby bi yow jàpp nga ne kan mooy mooy mooy les sensibles les connaisseurs yi ne si wetam te duñ ko wax dëgg. Hmm. le problème que là mooy c' est mooy mooy pendant six ans pendant nga nga recule pendant six ans tu on a problème tactique. jour boo convoqué nationale mu ñëw. man sax boo ngooy ni ma kaay sol may équipe nationale dugg ma dugg donc moom mi classe il a cette responsabilité là. maintenant y a un problème tactique dañ ko war a wax dëgg bon euh, kii euh, Kouyaté il est très bon mais mais il est défensif. il met toujours un milieu défensif tant qu'il mettra des milieux défensifs on n'aura jamais des gens pour yoo xam dañuy jox Sadio Mané bal bu baax l'attaque n'auront jamais de bons ballons bu ñun jouer pendant dix matchs vingt matchs trente matchs tant qu'il tant que mi ngi def un un milieu terrain défensif du ñu am mukk bal yu baax ñu mën exploiter mais mom comme ancien footballeur c'est un demi défensif hmm. détruire rek la mën bloquer porté de du toj plaqué rek la bën loolu la xam loolu leen ne def loo bon deuxièmement mooy premier point donc il faut dire que dans tout il faut équilibrer et léegi maintenant pour l'aider il faut franchement maintenant moom capitaine dañ ko jox responsabilité bu defee classement am na woo capitaine bi ah woo Sadio Mané waxtaan ceeg ñoom woo gànna gi waxtaan ceeg lu ngeen xam ci classement bi laa def lu ngeen xam lu ngeen lu ngeen xam wax la ma gars yi jox ko kenn ke euh, euh, euh, Sadio lui dira que peut-être que man sama bopp je préfère tandem bii laa kii laa gën a mën déggul sur le plan du jeu Koulibaly peut dire ça Gana Gueye peut dire ça mu tenir ci compte def na classement boo xamante ne dina ko teg ils seront efficaces mais il fait à sa tête on le laisse là-bas c'est pas possible il faut que il faut que les joueurs soient impliqués c'est pas tout le monde le capitaine Koulibaly mën na impliqué Sadio Mané mën na impliqué Ah, ligne bu nekk mën a jël kenn li mu leen teeree gànn gi moo ko yore bu fekket boo tegee gànn mu ne la man mën nga ma couplé la diw diw saa ni la man man kii laa soxla kii laa soxla kii laa soxla mais tu as tient compte soo jëlul soo ko jëlul en compte c'est ton affaire mais l'essentiel mais il faut les impliquer nga xam seen avis au moins doo tëju ci biir nekk teg say classement woo say woo say bloqueur say ëmbile terrain trois quatre cinq bloqueur teg leen foofu ñuy bloqué bal bu ñu tacler bloqué tacler bloqué l'attaque ne recevra jamais aucun aucun bon ballon bu ñu doon ba ba ba suba on na gagnera jamais les gens ne vont pas s'exprimer on a de très bons attaquants de classe internationale de classe donc mondiale mais ils ne sont jamais bien servis ils ne seront jamais bien servis parce qu'ils mettent un ragal la bokkat la mënul di responsabilité <laughs> c'est ça le problème on a rien contre lui pendant six ans sept ans mu yor équipe bi il n'a plus à rechercher la solution elle est là il a un bon group mais ci biir groupe bi dafa war a jël ñoo xamante ne ils sont complémentaires hmm. mais il faut tenir en compte que lui c'est un ancien milieu défensif il moom moo bloque milieu de terrain parce qu'il fait toujours un milieu défensif c'est dëgg la jërëjëf ah. futi say classe ba am na woo Sadio Mané woo woo woo itam ka Kalidou ni ko loo xam ci lii woo Gana Sadio ni ko man kat bu milieu bi daal kii daal xam naa ne bu ma dégg dégg ko bi il faut les impliquer ce sont des cadres des cadres irremplaçables il faut les impliquer. dana compliqué de. bon jërëjëf ah. bu demee bay laaj ay joueurs dina compliqué mais. non mais tout le monde le fait Frans Beckenbauer. Frans Beckenbauer Frans Beckenbauer ba muy Franz Beckenbauer ba muy joué o Bayern de Munich l'entraîneur bu defee classement daf ko koy wan moom mooy classe moom mooy waxtaan moom c'est un avis qu'il lui donne pas tenu de le suivre. c'est il discute avec lui. Mm -hmm. tous les grands capitaines européens ñoom ñoom ba ñu fubal les les ñoom ñëpp bi ñu fubal dañ leen te classement baa ngi ni ñuy wax li ci xalaat. dafa càmm waaw dëgg la. jërëjëf ah. jërëjëf kenn boo ko daan def. place bi dafa daan def. a ah. moom moo fa moom kenn Saliou Sy bi ñoom et puis il a des ñoom ñoom lu ñu fay jëriñ. li ñu fay jëriñ Ablaye Sarr et que c'est un c'est un très bon entraîneur qui qui tactiquement il est très bon. Mm-hmm. d'accord ah. Aliou Cissé dañ ko bàyyi li mu nekkee le problème du Sénégal on on on n'amènera rien du tout. technique la ñu fi indi dara tant qu'il joue de cette façon on n'aura rien du tout les anciens footballeurs boo woo ils ne diront ñoo xam lu seq ak jërëjëf xaritam la ñoo démb barki dañuy dira pas la vérité. jërëjëf mais a un problème de coaching. dëgg la jërëjëf. Oh, ah. dafa dëgg la xolam dafa jeex dëgg la waaye mais Karajo tamit mi ngi jeexal suñu xol. très important. <laughs> parce que Karaja waaw dama bëgg nag Karaja bul nekk parfois pël futa. dama sori sama xol doo pël futa. dégg daal waaw dama lay wax rek Karaja ayca. Euh, Amadou Gueye Fifty tey ngaa dugg wax li li métti équipe bi comme yow xamante ngaa yow te mën nga waxante ak ñoom woo leen téléphone nga wax leen li ñu naqari. wala soit ñu jël équipe bi jox ko Alioune Sarr CNG lan la. lan ah. yow loolu la mais xam nga li li Paa ah. Sénégal ñëpp ay entraîneur lañ de. Mhm. surtout nag surtout am na yi dafa am problème. billaay am na problème. entraîneur équipe nationale Sénégal da que boo woon dix sénégalais. Ah, ñu toog jox la classement. mais nag les sénégalais parfois ils ont raison de. non dama ni la boo toogoon teg dix sénégalais. ñu mhm. jox la dix classement yu bokkul nel benn. Mhm. ñaareel bi boo woowee man. am na si j'ai un moom laa nekk loon rek ñu seetaan match bi mais mhm. xoolal. jour yu bëri yi nga gis mu doog ci classement wu tayam yi mm. Mm. pratiquement dama ne ko yow yaa tax ma xam leen parce que dafa ma daan wax ni ma xam nga diw lu mu jaay mooy toj fii xam nga diw ñu ñu ñu ñu classé dañ koy dund mais parce que xam na la ñuy ñooñu ñu ngi toj ñu am succès ñu jël leen mm-hmm. léegi bu fekkee Aliou Cissé dafay woo ñooñu yaa may comprendre mm-hmm. ñu woo ba ñu ñëw équipe nationale amuñu même résultat mm-hmm. comprendre nga dootul nekkul si moom tey jii Sénégal lu muy gën a jooy. Fadiga si la bokk. amu amatuñu joueur bu mel ni Fadiga ci biir terrain loolu la ñuy jooy. Mhm. mais am nañ Pape Alioune Ndiaye mais bizarrement. joué na fi. waaw mais mais après mais mais ngay gis gars yi di pour mu war a ñëwaat mais mosuñu football bi noo mën def mu am détail. gis nga mhm. Fadiga mooy benn milieu terrain sénégalais 10 boo xam ne bu defee interception. mi ngi avancé yu na solution yu gaaw ba léegi nag loolu la ñu suñu football li ñuy kaas ni yëpp loolu la ñu amoon. waaw lu tax ñuy seet loolu ba tey. Euh, euh, euh, joueurs yi may wax yëpp am nañ profil. Mhm. mais sur le terrain dafay bëri lacune. après da nga naan ñii mënuñu football dëgg-dëgg. <laughs> Sénégal dafa defar de ñëpp ay entraîneur lañ mais joueurs yi nañu def li ñu mën. 88 628 14 13 allo. allo. allo. allo. allo oui ñu ngi lay dégg. allo allo. ayca euh, euh, gars yi wooyee leen di woote si euh, fifty du ma mën a jël fii parce que day am day day xaw a son bi du xaw a leer mais il faut que nga nga nga nga nga dugg yow. parce que dama ñooñu il faut nga wax ak ñoom parce que yaa ngi fa ak ñoom dama bëgg nga wax ak ñoom fifty waaw ah, kay.